yàlla sàkk dee dee nekk aaxiru mazharin kon fala budda min al il faut dee ñëw dañ koy sóoraale balaa moo ñëw pour su ñëwee ñu mën a mu mën a woyof waaye bàyyi indi na benn baytu boo xam ne baytu boobu toujours suñ ko fàttalikoo ci dee day yomb ci ñun lool ndax xaqiqatan dee ak dund dee dafa laxasu ci biir dund dund laxasu ci biir dee almawtu laa yadurru man qad saida bal huwa rahatun liman qad rachada Baay Ñas nee ne almawtu dee ñu ne haa mu ne laa yadurru man qad saida du lor du wàññi dara ku texe ci yàlla bal huwa rahatun liman qad rachada mu ne sax dund ci boppam sax noflaay la ñeel ki juboon ci àdduna ki dundoon ci àdduna ci yàlla naka jekk eh, gudd fan mooy dund ci yàlla naka jekk gàtt fan mooy dund ci lu dul yàlla nit dana dund fekke juddoogul nit dana dund fekke juddoogul nit dana dee booba fekke dee na balaa moo dee kon ndekete nit ki soo dundee ci yàlla sa dund lu mu gàtt gàtt loolu dund gu gudd la nit soo dundee ci lu dul yàlla sa dund lu mu gudd gudd doonte ay junni at la yow sa dund dafa gàtt waaye nag ci biir dund ak dee dañ ci gis ay hikma xikma dee dafa am hikma li tax yàlla tëral ko indi ko ci àdduna ay xikma la ay xereñ la ndax subhaana man axfa shuuna xikma li kay yubaayina alxuduud aljamma noonu la bàyyi ba bàyyi nee ne sellal naa kiy jëru mbir nëbb ko ci mbir ngir feeñal mbir ah dee su amul woon nag du baax subiqna ila dunya falaw aasha ahluha munina biha min jayatin wa dhuhubi mutanabbi nee na dañ ñoo jiitu ci àdduna ñañu jiitu woon su nekkoon ne ñoo ngi dund ba léegi ñun duñ am place bu ñuy dox sax dem marché pour jënd luñ lekk waaye kon ndekke dee moo organisé àdduna bi yàlla ko tëralee noonu pour doomu aadama yi mën a dund moo tax yonent bi nee ne man araada waa idan fa innal mawta yakfihi képp ku bëggu ko koy waar jëlal dee dee doy na waarkat